ñetteelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi jàng nañu ci téere njalbeen gi yàlla ne nañu bind nit ci sunu melokaan mu niroo ak nun te na yilif jëni géej ak picc asamaan ak jur gépp ak suuf sépp ak lépp lu ci raam yàlla sàkk na nit ki ci melokaanam ngir ñu am kóllëre yàlla sàkkul menn mala ci melokaanam melokaanu yàlla lii la tekki yàlla may na nanu xel ngir nu xam ko yàlla may na nanu xol ngir nu bëgg ko yàlla dafa bëgg nit te bëgg nit ki bëgg ko yàlla may na nit coobare ngir mu tànnal boppam li muy def ci pënd suuf la yàlla sàkke góor waaye yàlla gis ne góor gi dafa wéet mu ne dina sàkk ku koy dimbali mu nelaw loo góor gi daldi jël genn ciy faaram sàkk ci jigéen ci téere njàlbeen gi adama ne kii daal yax la ci samay yax di suux ci sama suux dees na ko tuddee jigéen ndaxte ci góor lañu ko jële looloo tax góor dina beru ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñu nekk kenn adama ak awa yaramu neen lañu defoon te rusuñu ci woon yàlla tuddee góor gi adama jigéen ji awa yàlla wax adama ak awa ñu am doom yu bare tasaaroo ci àddina te yilif ko léegi ma laaj leen fukk bi yàlla ne nañu bind nit ci sunu melokaan mu niroo ak nun loolu lan la tekki yàlla xel la kon du sunu jëmm la bind ci melokaanam yàlla sàkk na nit ki jox ko xel ngir mu xam ko bëgg ko te déggal ko fukk ak benn lu tax yàlla sàkk nit ci melokaanam yàlla sàkk na nit ci melokaanam ngir mën a fas kóllëre ak moom yàlla bëgg na nit ki bëgg ko te am jàmm ak moom fukk ak ñaar lu tax yàlla sàkk jigéen yàlla dafa gis ne góor gi wetoon na moo tax mu sàkk jigéen ngir mu dimbali ko te ñu am kóllëre fukk ak ñett lan lañu jàng ci mbirum li yàlla tëral ci diggante góor ak jabaram góor ak jabaram war nañu ànd te doon wenn suux li yàlla tëral mooy góor war na am jenn jabar rekk yàlla mënoon na sàkkal aadama jabar yu bare waaye yàlla xam na ne nit dafa fiir nee na góor gi ak jabaram war nañu nekk kenn fukk ak ñeent lan la yàlla sas aadama ngir mu def ko ci kaw suuf yàlla wax na aadama mu am doom yu bare te ñu tasaaroo ci àddina si war nañu yilif àddina ak lépp li ci biiram fukk juróom loolu lan lañuy won ci diggante yàlla ak nit yàlla dafay wax ak nit ñi yàlla mu ngi séentu ci nit ki mu xam ne moom mooy boroomam fukk ndax aadama mënoon na niki iblis tànn déggal yàlla wala bañ koo déggal ak lu tax waaw yàlla may na nit ki coobarey tànn def li ko neex